Pikine Kër Massar Thiès Louga Saint-Louis Kaolack Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk diaspora Touba ca kanam ñu ngi fi ba léegi ak yéen ci exposition Touba ca kanam bi nekk fekk suñu jëwriñ sëñ Abo Bousso. ak soxna Ami Ndiaye Paris ak soxna Rama Diouf États-Unis bi nga xam ne moo jiite lépp luy social ñuy ñëwoon rek euh, dalal suñu soxna yu baax yi di leen laaj euh, nan la ñu gisee liggéey bi nga xam ne fekk nañ ko fii ci Touba ci kanam ci bu sell bi ci bis bi nga xam ne mooy bisu Serigne mag bi nga xam ne mooy màggalu Touba soxna Rama ak euh, soxna Ami bi nga xam ne dañu ñëw fii ci exposition bi tey teewaale fi soxna yi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi yëpp. Euh, soxna Ami ñu ngi leen di ziar baax di la ndokkale laaj euh, nu ngeen gisee liggéey bi nga xam ne fekk ngeen ko fii ci liggéeyu Touba ca kanam bi bisimilah. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu mboolem kilifa yi ñu fi fekk kilifa Touba ca kanam di nuyu ñëpp Touba Fakala macha allah di rafetlu li ñu fekk fii ci Touba affaire exposition bi ñu fi fekk liggéey bi liggéey bu ci ayib bu aw yoon. di ñaan yàlla rek li nga xamante ne nii moom lañ ci namm yàlla defal ñu ko yombal ñu ko ba 2 millions de murid yi ñu bëgg ñu dem ba romb ko murid yëpp bokk si ba juróom-ñaari projet phare yi ñu réaliser ko ak réaliser yeneen yu ñëwagut macha allah liñ fi fekk am na solo. jërëjëf soxna mi jërëjëf jërëjëf xam naa itam euh, xam naa li ci waroon a jiitu sax mooy suñu jëwriñ sëñ abo comme sànq moom lañu doon defal benn interview euh, bi ñu taxaw suñu mbokki soxna yi nga xam ne ñenn lañ ci diaspora bi soxna Rama Diouf mi nga xam ne itam kenn ku ne xam ne taxawaayam ci social ci États-Unis moom itam mi ngi fi ñu jox ko suñu micro laaj ko nu mu gisee Touba ca kanam ak liggéey bi nga xam ne mbokk yi ñu ngi koy def ginnaaw bi ñu ñëwee fii ci dëkk bu sell bi bisimilah soxna Rama auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim di sant yàlla di sant Seydina Muhammad salallaahu alayhi wa sallam Euh, di euh, kontaan ci li nga xam ne yàlla fekkee nañu fi ñu fekkee liggéey bi euh, ci Touba ca kanam di exposé boo xamante ne dina tax sunu mbokk ñi nga xamul dina xam Touba ca kanam seen liggéey di sant ñëpp rek di kontaan tamit ci bu ñëwee gis sunu yeneen. mbokk taalibe yi nga xam ne dañoo nekk ci diaspora bi xamante loolu rek sant yàlla la donc di ñaan rek Touba yàlla jëm ca kanam jërëjëf. soxna waaw jërëjëf ma jërëjëf jërëjëf xam naa itam comme ñu ngi fekk soxna Eh, itam kenn ku nekk xam na ne ñu ngi waajal bis bu am solo muy le 24 euh, décembre ca Paris muy journée Touba ca kanam boo xamante ni war nañ ko faa amalee taxaw ak sëñ Abo so mi nga xam ne moo jiite relation extérieure nga xam ne coordination boobu ci moom la jóge xam naa sëñ Abo bala ñuy jox kàddu sëñ euh, na Ami dañ lay laaj bis boobu ak euh, nan nga gisee diaspora bi seen taxawaay bu ñu war a am ci bis boobu nga xam ne ñu ngi koy defal France te dara taxu koo jóg lu dul nu ñu yaatale liggéey bi ci. diwaanu France surtout Paris xam naa passage dañuy nuyu euh, le coordinateur Mouride Ndaw ak euh, euh, sëñ Xaadim Badiane ñoom nga xam ne ñoom itam di ay jàmbaari Touba ca kanam suñuy jëwriñ féete foofu ànd ko ak soxna Ami sa ci sa kilifteef sëñ Abo la ci bis boobu rek lan nga ci mën a indi commission sëñ Modou ñu jaajëfal bu baax ci taxawaay ak sa pasteef communication bi nga xam ne diaspora la aju ni nga koy jëre ni nga koy ni nga koy avancé léegi sëñ bu baax baax di nuyu sunu mbokk soxna yu tedd yi nga xam ne ñoom lañ taxaw doon soxna Amy Ndiaye yàlla di Baye Fall di jàmbar loolu nekk France di fa doxal liggéey bi soxna Rama di jàmbar loolu nekk Amérique di fa doxal liggéey bi yor programme discipline bokk ca ba noppi yor social bi ci ah, di rafet lu baax baax li nga laaj Sëñ Modou mooy waajtaay wi nga xam diaspora bi mi ngi koy waaj ci Paris incha allah ci si xalaat ko te bi xalaat mi ngi ko inspiré ci ba mu demee Amérique ngeen dajee ñu fekk si ñoom soxna soxna Amathou soxna si kër mu wax ne fës na yéene taxawal bis mu mel nii ci ah, ci France waaye nag subul salaam bi mu nekkal ak mbooloom soxna ya fa nekk daayira ak ak ak waa France gépp ci njiitalu sëñ Mouride Ndaw mi nga xam ne coordination ba ak sëñ Bayaan mi nga xam ne mooy coordinateur diggri euh, Paris ak soxna Alimatou Doucouré ne moo jiite soxna yi ci wàllu Europe yëpp euh, di defal lu baax a baax di ko di ci woo mbokk bépp nag di leen xamal ne du bisu du bisu soxna Amy Ndiaye yàlla mi du bisu Subul Salaam bisu Touba ci kanam la fépp fu ci waay maa nekk bi ñu wootee Amérique gis nga yow bi da dem dem fekk ji ko soxna si dafa dem Amérique fekk ji ko kon ñu ngi ciy woo mbokk yi nekk ci diaspora bépp bis bu ñëwee ku ko mën a teewee si na teewee si ndax day nekk loo xam ne lu am njëriñ la ci France France xam ne dañ ko war a toj mu toj leeral leen Touba Ca Kanam ndax euh, dafa nekk ay taalibe allah euh, kon ñi ngi waaj ñun bi incha allah le la defal lépp nga fekk ko ci sa ndam ci barke Sëñ Touba xam naa kon soxna Ami euh, bis bi rek comme nan ko waajale ak ñi ngi ko àndal France ak benn taxawaay lañ ci mbokk yi a ak ñan nga xam ne war nga leen leen a soññ ci waajtaayu bopp bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah man Ami yàlla bàyyi fa àll soxna jaara Paris maa si waat rek di nuyoowaat di ziar. ànd ak waa daayira subul salaam rek ñuy waajal euh, café diaspora Touba ca kanam Nuurul waa diaspora bi di woo waa Sénégal di woo ñu teewoo ko fas yéene yaatal liggéey bi biir Paris massification bu am solo jël jël nag bis 24 bi muy bis bu symbolique bëgg ci liggéeyal sëñ Touba à travers Touba ca kanam ñoom ñi nga xam ne ñoo bëggoon a fay liggéeyam sëñ Touba ñu woon neen bu baax ne sëñ Touba li li feeñagu te ëpp li feeñ fas yéene ko liggéeyal lu baax si jour bu symbolique biir Paris muy loo xam ne dañ ci am yéene fas yéene ci egg ak jàmm ak salaam fas yéene ci liggéey lu ko weesu njort maa ngi jërëjëf soxna mi jërëjëf jërëjëf kon mbokk yi bis baa ngi noonu yàlla ci ci woo waa Europe yëpp surtout di ci woo waa jar diaspora bi yëpp eh, waa Europe ci ndigalu ci teewaayu kilifteefu Baye Serigne Gueye eh, ñu ngi woo waa Europe yëpp waa Italie waa France waa Suisse waa Espagne ñëpp rek ñoo xam ne le 24 boobu du France rek bisu Touba ca kanam la ñëpp déplacé jàpp ci liggéey bi ba buñ fa jógee comme niñ koy defee ci réew mu nekk rek ñu mën koo defee noonu eh, te lépp rek di eh, loo xamante ni njëriñu Touba ca kanam la kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal màggalu jàmm di ñaan yàlla yàlla yóbbu ci jàpp ci barke a nañ ko ngir mën a xam li nga xam ne mooy xew si